euh, depuis quelque temps en Afrique un peu partout dañu naan euh, il faut qu'on dispose de notre monnaie il faut que suñu xaalis suñu réserve yi nekk bitim réew ñu ñu ñu rapatrier ko pour mën a gën a ful li nga xam ne euh, moom mooy suñu amatuñu réserve bitim réew ah bon amatuñ ko réserve yeeg jeex na non jeexul ñibbisi la fii depuis deux ans peut-être hein euh, mooy dernier accord yi ñu mujjee am ak France en tout cas dans le cadre du. trésor français fa trésor français bi. Oh, war nañ ko libérer en tout pour libérer ko je pense amatuñ fa réserve de manière formelle amatuñ fa réserve lépp a ngi fi maintenant ñu bokk am monnaie je pense que lu baax la parce que tey adduna bi dafa toll ci booloo man d'accorduma ci ñi nga xam ni jàpp nañ ni ku nekk da nga war a demal sa bopp je pense que Afrique euh, surtout CEDEAO dafa war a am sa ñu ngi ciy liggéey mën na bi ma nekkee affaire étrangère liggéey naa ci dossier boobu lu yàgg xam naa ni des na encore ay mais mais mois am nañ ko pare kon li ñu ci UEMOA bu buñ ko yàq nañ ko sàmm fexe nag ba gën koo defar parce que on a quand même une monnaie stable inflation amuñu ko dem jëndi bitim réew wala jaayi bitim réew sonnaluñu je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages aujourd'hui à avoir une monnaie commune entre nous que d'avoir euh, ku nekk sa propre monnaie boo xoolee réew yi ñu dendal ñu am seen propre monnaie euh, gëm naa ni ñun suñu monnaie mooy seen refuge ci suñuy monnaie la ñuy nëbbatu mooy seen devise kon nañu sàmm li ñu yor jëm ko améliorer maintenant en termes de gestion. donc yow bëgg ñu continuer le processus avec les instances communautaires. Ah ba am oui. une monnaie communautaire. communautaire mais ñu bañ a aventurer wu ci sur une monnaie locale. mais ñun ñun mënuñu amal suñu bopp suñu monnaie locale. non mën nañu am monnaie locale là n'est pas le problème c'est que qu'est-ce qu'on gagne tout de suite bu ko amee xam nga dañoo am ay réew yoo xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe ay réew yoo xam ne dañu war a jëm kanam dafa am ay combats yoo xam ni. Euh, bëgg ko mën léegi nii tu fais perdre au pays encore dix ans amul amul njariñ fondamentalement on a am nañu tey mone boo xam ni mone bu wóor la monnaie bu stable garanti leen kii lañ leen wax réserve moitié réserve yi mu ngi woon France nekkatu fa on a quand même ba tey la garantie attention on une garantie boo xam ne ci kayit la bu monnaie bi naree am problème France ne dina intervenir heureusement intervenir guñu ba tey donc monnaie bi amul problème donc y a vraiment pas de problème maintenant li ñu war a euh, xool mooy continuer processus boobu ba nga xam ni dootuñu soxla garantie kenn que monnaie bi peut-être suba wékku ci euro en partie wékku ci dollar ak yeneen monnaie yi am Euh, en partie y a y a aucun problème ba keroog ñu am doole bi ñu war a bi ñu am mais am na ay combats yoo xam ne je pense que c'est des combats yoo xam ne day tardé réew mi fi mu nekk xale yi liggéey la ñuy wax fi mu nekk xale nit ñi infrastructure la ñuy wax cadre de vie la ñuy wax des prix la ñuy wax mais je pense qu'il faut se concentrer sur ces questions que ngay uti yeneen combat yoo xamante ni daanaka nag euh, njëriñ askan